juddu ni ngeen juddoo ci loo nekk ça va ci jàmm noo def toogal nga juddu ni nga juddoo màggee ni nga màggee jëfe ni nga jëfee réew mi doo fi qu'est-ce qui se doo fi seeka cest à doo fi miri mase Aala Ndiaye nga baax bari valeur barki Serigne Fallou Mbacké mbel njaabee la ko wayal nee ni nga dond fekkoo leen fi donn mbaax nàmp mbaax ñu tettale ci mbaax nga judd ci mbaax yaru ci mbaax dama ne Aziz Ndiaye yaa doon nopp doom joo am dañ koo roof aimé yaa doon nopp lii boo ko déggatee man mii maa la ko nga baax bari valeur Bakare dara maar aram loo ku ma caam xaar yàlla bopp coow bugguma penda paate ma penda tubaarkàlla masàllaa ba pare dégg naa mu dem ba ca ba ca ba dara maar ci waawan def fa bayeeru or xabru sëriñ Babacar yow moo ca des yaa nga ca kanam réew mi koo a siiri mi séeri mis valeur ngeen baax kaa ah? noo def sabage yaa ngi ci jaam saba loo bëggoon xàmme naa la waaw ah? ñaaña saba yaa ci jaam ça va loo bëggoon. waaw. Mhm. Mhm. Mhm. dëgg la. dëgg la. dëgg la. dëgg la bambi joxal ma ko sa numéro xam naa la bu baax dëgg la. ndeysaan dëgg la nga ne ko là, ko yar dëgg la dëgg la nga ne ko maa ko yar dëgg la bilaay dëgg nga wax dëgg la taaw bi ngay jox ñoom papa papa dëgg la ndeysaan dëgg la Bambi jox ko numéro bi après ñu waxtaan dama nekk ci direct dégg nga après rek ñu waxtaanee ko tubaarkàlla macha allah loolu nag moo fi beesoon ci ngoon gi. Aale Ndiaye fi woote téléphone maman mu baax mi maman moo woote de maman maman mu baax mee woote daan ma maam Ndiaye sama papa moo la soxla sama papa nee jox na la ceeb ak dawlin ak dawlinu Zador ak ceebu Zador ma ne ko ah mu ne ma ak teewu Zador nee nañ nga yónnee sa oto teg nañ ci enveloppe ma ne ko enveloppe. ah yéen Aziz Ndiaye mii yéen yéen mbaa duma sa rey nit nag Aziz Ndiaye yu baax yi ngay def nag xam nga ni moos baaxoon na sunu réew barki sëriñ Touba Mbacké borom barrière or bi alma barrière or la fa def lu ci waay mën ci yàlla tëral na ko Bakare garab maar aram loo Kumba Caam barrière or nga defar sa sang bi billaay moo ngi ni barrière or Aziz Ndiaye nga baax bari valeur damaa kontaan ba mënumaa wax barke Serigne Touba Mbacke bu la neexoon du la ci fekk ndax man ci actualité rek laay dox Aziz Ndiaye bu la neexoon du la ci fekk ndax man ci actualité rek laay dox man li xew ci réew mi rek laay wax man amuma fu may far fu xew ci réew mi waaye boo defee lu baax dañ koy wax ku waxu ku waxul rek ci xew mi doo gor ku waxul ci xew mi doo nit lu baax nga def ci réew mi ma tudd ko nga teral ma lu ci waay man yow ko Aziz Ndiaye koo digi dóor mu wiiri koñ waa baax na après ngeen woo ma dégg waa baax na waa Aziz Ndiaye ku mu digi dóor nga wiiri koñ amul sa ma dem te ñëw ku mu digi dóor nga wiiri koñ barki Seydina Mouhamed direct bi nag dama koy téye ba ñuy wàcce saaku ceeb yeeg dawlin yi ngeen gis lépp nga la nag bu kenn ñëw laa ilaaha illallah Aziz Ndiaye yónnee na ma ceeb ak dawlin ak ataaya ak xaalisa nga gis nit ñi raan bu kenn ñëw man dèjà li nekk ci fii li nekk fii sama employé rek mën nañu xolal mën nañu cent personnes fi mu ne ku ne kilo lay ku ne kilo ceeb fi mu kilo ceeb ngay am kilo ceeb ku ne kilo ceeb ngay am ku ne kilo ceeb ay cas si social ñoo nekk sama palaas bi ngir yàlla ak junanti bu fi kenn ran Aziz Ndiaye dama teral taxul ngeen ran 4 millions yi dama amee bor ci dëkk bi dama leboon benn oto oto ba fayaguma ko 4 millions yi laa koy fay ndax dama déggoo ma naan ko may ma oto léegi nag may na ma 4 millions damay dem fayee ko ay bor kon nag bu leen fi ñëw di ran mbaa ngeen taxaw fi di wax ay coow di am ñu naa Mame Ndiaye dafa ñàkk kersa bu kenn raam jamono jii ñu toll nii ma toogee Aziz Ndiaye rek laay wër laay topp lee jaay naa sama leer jëndee ko lëndëm jaru jaru ko jarul xasante jarul rayante jarul xeex fi mu ba pare nag kaay yëgal la baam bi baam bi bambee mbaa xam nga ni man loxo yi ma nekkoon baaxul gis nga ceeb bi ñu doon lekk ceeb bi sama biir bi dana am bolone rek dangay am ballonnement ku yorati sa ceeb tee ko xeer la te kii ceebam bi dañ ko traité amul gom dangay lekk léegi Zador la dangay lekk léegi digérer léegi képp ku bëgg maam Njaay te lekk Zador ba pare ataay ji la ma yónnee fi ne gis nga ataay ji la ma yónnee digérer léegi ni koy waxee ceebu Zador rek laay topp Zador Zador rek laay topp jamono ji ñu toll Zador. Zador je t'aime Zador je t'aime I love you Zador. ba pare tur bee neex Zador. Zador ah ah déedéet bu ci teg je t'aime na teg Zador rek. fi mu ne Aziz Ndiaye rek laay topp bu leen neexee réew mi ngeen wax ma lu leen neex ma ne la xaalis dafa sax ci xol te ki yëkkati alalam may la. amoo fayam Aziz Ndiaye mayuma benn saaku ceeb mayuma ñaar mayuma ñett mayuma ñeent mayuma juróom fay la ma jox fay la ma jox may jooy pareeguma Aziz Ndiaye teg ci enveloppe tegaat ci dawlin ba pare dama maam Ndiaye ma ne ko ah mu ne ma dama lay gis ngay ballonné ma ne ko dëgg la mu ne ma yónnee naa la teesador oh. gisoo leen fan yi ni ma nekkee à forme fan yii maa ngi à forme. maa ah, loxo yi ma nekkoon baaxul. ceeb am xeer ku ko amati tee ko. Zador rek laay topp. waaye nag bu ma waxee Aziz ba pare yéen ñi nga xam ni yéen a utiliser lotion déglu leen ma les bees mes mots gis ngeen lii ma defar nii yéen ñi la utiliser euh, nuñ koy waxatee lotion ba seen yaram yàq yéen ñi diwoo ay diw yu ba seen yaram yàq réparation bu gaaw bi ñëw na ngeen gis du de vaseline la xaale ma wan leen ko ba ngeen xam ko du de du vaseline la vaseline vaseline la leen gis nga vaseline Vous leen defal ko xam ngeen am loxo yu kento yu bu sa euh, crème mes pieds ak ak ak ak vaseline bi 5000 la vaseline bi di nee naa leen tabaski bu jotee dañuy am inspiration